man ma nekk Awa Gueye man maa man maa taxaw fii si Kër Jarga Kër Jarga woot man jigéen laa maa ngi bugga a taxaw fii candidat ñu woot ñu woteel ma kansilorship bi soo gisee man ma bugg a loolu bugga naa liggéey ak jigéen ñi nga xam ne réew ñi nga xam ne ñoo nekk fii si Kër Jarga woot waxuma Kër Jarga woot rek waaye ñu nekk a Jokaar di dem ba yëpp bugg naa liggéey ñoom ci président Baro ndax gis naa nu moo doxee dafa nekk ni koo xam ne ku yërëm jigéen la ku bugg a jigéen la ku jox jigéen cër ak gëddam loolu la ba tax na man ma bugg a taxaw nekk suma diggante ak jigéen ñi ci nekk ci réew mi ba nga xam ne lépp luñ bugg a soxla rek dina yomba si ñoom éwén si ñoom loolu mooy suma taxawaay bés ni ki tey pour ma war a taxaw liggéey ak ñoom man dama yàggal si parti bi te dama bugg a président Baro moo ma tax a dugal si politique waaye man nekkuma woon politicien